الحمد لله الكريم ذي المنن على صغاري بفرود وسنن شكر جوالي أنه قد ساقني لوطن به نفى ما عاقني آه، بسم الله آه، سيدنا عثمان ñu ngi ñu wax aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu te di la ziar bu baax eh, macha allah noonu la koy taar kàlla eh, ñaari laaj yi nga laaj ci wirdu wi hmm, mot na ko lool am na solo mooy eh, ana fan la tàmbalee dëgg hmm, hmm. wirdu wi tàmbalee loolu uh, jotoon na cee am ci yenn ci warom xam-xam yi ko ay kii ñii ne uh, ci auzu billahi min ashaitan rajim wa inni auzaha bika wa zurriyataha la tàmbale ñii ne sax fi mu tàmbale jiitu na loolu ci beneen nuska boo xam ne daa def auzu billahi min ashaitan rajim wa qad aazani minhu Eh, nga xam ne eh, man laajoon naa ko Cheikh Mouhamed bin Muntaqa jamono eh, akana bés bi ma ci joxe woon iznul iznul i'ta waaw ñu mën koo joxe bés boobu la ma ko laajee ne ko daa mel ni daa am ay kii ci am ñii ne qad aazani yàlla minhu foofu la tàmbale ñii ne auzu billahi mina shaytaani rajim wa inni onsa la tàmbalee mu ne ma li ci kaw diggante sëñ beeg boroomam la waaw ndax eh, waxin woowu xëy na day waxin woo xam ne eh, ci ni ma ko déggee ci waxi sëñ Muntaxa day waxin woo xam ne eh, ma wax waxin wu dox diggante sëriñ bi la ak boroomam kon du du suñu mbir ñun ndax wax ne auzu billahi mina shaytani rajim wa yàlla musal na ma minhu ci moom waaw loolu ñun xëy na mën nañoo ñàkk yegg foofu ab dolluwaay la waaw moo tax mën a diggante sëriñ bi la ak boroomam waaye loola bam mu ko loolu muslu ak salaatu ala nabi gi da cee tegaat haza huwa al wirdul xaatim al rasulil xaatim maanaam loolu nga xam ne fi mu waxee haza wal wirdul xaatim al maxuus min allahi bi xaatim mooy onwaan bi mooy maw mooy mawdoox bi daal bu doon maqalata ji mooy mawdoox bi léegi li ci suuf lool lay wax ne moom mooy wirdul xaatim mooy li suuf nga xam ne kon mu ngi tàmbalee auzu billahi min asheytan rajim wa inni uidaha bika wa zurriyataha min asheytani rajim rabbi auzu bika min hawzati shayatini wa auzu bika rabbi an yahduruni بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بإخراج الله تعالى الكريم الذي أذوب الثلاثة والثلاثين إلى غير صعب هذا الورد المبارك إلى غير مخطر له بلا توجيه شيء منها إليه وإلى مخطر له أبدا صلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وجعل هذا الورد المبارك حسنا حسنا عن جميع أعدائك حسنا حسنا حسنا عن جميع أعدائك وسترا مانعا من جميع مفاسده wa farajan jamiil muslimina am nusxa bu def wal muslimaati amin ya rabbil alamin kon mm, foofu la wirdu wi tàmbalee loolu ma wax noonu nga wax nag auzu bi kalimatillahi taamati min sharri ma xalaq ñetti yoon ak bismillahi alladi laa ma ismuhu ñetti yoon kon léegi njëkk a dooga eh, eh, wax auzu bi kalimatillahi taamati ñetti yoon wax bismillahi alladi dal di continuer ba wirdu jeex kon daal onze bi onze billahi mina shaytan rajim wa inni onzoha foofu la wirdu bi tàmbalee mooy daal lépp li nga xam ne moo féete suuf hada huwa al wirdul xaatim al maxuus min allah bi rasul waaw wirdu nag daa bokkut ak xasida ak xasida boo koy jàng da ngay jàng eh, lépp donte am na ci xasida yoo xam ne sax am na yuñ ci wax naan boo ko mënee bàyyi moo gën ndax loola tamit day diggante sëñ beeg boroomam Ah, mooy lu demee ni fi muy fi muy jaayanteeg boromam ci muqaddamatul xidma ah a ah, ah billahi alladi la ilaha illa huwa xayaati wa mamaati wa xarakaati wa sakanaati loolu rëy gi mu rëy nga xam ne daa mel ni am nañuy faral di wax ci daañu ne maanaam loolu duñ ko jàngale ndax eh, nit ki bu koy jàng te yeggut fa ko sëriñ bi di waxe mën naa koo indil ay jafe kon lii tamit noonu la demee rek diggante sëñ beeg boroomam la diggante sëñ beeg boroomam la léegi nag li féete suuf hada huwa wirdul xaatim loolu mooy wirdu yi loolu nag bokkut ak xasida tey ji nga doon jàng matlabu shifa yi jàng bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayyidina mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman hada matlabu shifa bi tawassuli bu dee xasida yooyu yëpp mën nga koo jàngale waaye bu dee wirdu nag moom li nekk ci suuf hada huwa wirdul loolu mooy wirdu wi ba jeex léegi nag euh, li wax ci xaatim bi ne waxtoom mooy diggante euh, tisbaar ak takkusaan mooy euh, muxtaar mi muxtaarum suba gi diggante timis ak gee mooy muxtaarum ngoon gi léegi nag bu dee bu dee bu takku bu dee bu suba gi mooy diggante tisbaar ak takkusaan bu diggante boobu jàllee mooy ah, muxtaar mi jàll na ah, ba timis di jot darura la waaw ah, darura la mooy fu nga xam ne mën nga ko faa defee boo ko defee ba tey joxe nga waaye bu timis xasee jot nag kii la maanaam maanaam day waxtoo suba gi jeex na maanaam jant bi sona boobaa faat nga ko mën nga koo fay do defate da ngay fay waye joxe wo budé bu timis mi digënté timis ak gé muxtar la digënté gé eh, japp darura la bu fajar gi xasse xar ah ki nga num tuuti fatna da ngay fay nga ci waxto ëllëgu bu boba fatna da ngay fay kon khatim bi mom lolu moy waxtom lolu aji ci waxtom waaw loolu aju ci waxtoom loolu la sëriñ bi di junj wa waxtuhu bayna zuhri wal asri wa bayna al maghribi wal insha wa baadaha waaw waaw loolu mooy mooy mooy mooy waxtu wi am na yeneen yu ñuy wax ci waxtu yi tamit ñu naan boo deful xafiif ak kaamil da koy def seen waxtu ko def ginnaaw suba ak ginaaw takk tàkkusaan waaye yooyu mooy faral di wax ne wirdu bi moom li mu àntal ñu bind ko ci ah nga xam ne mën nañoo jàpp ne loolu sëriñ bi la jóge loolu jàpp ci moo gën a wér moo gën a wóor yeneen yi nga xam ne dañ koy dégg ak ci ku mu mënti jóge waaw fekk boroom neewut ci lii ci sëriñ bi la jóge ci lu leer lu wér lu tax ñu bàyyi nag lii ànd ak wérdu wi di jàpp ci loola nañu jàpp ci lii rek moo gën a wér moo gën a wóor te sëriñ bi lii la wax wax ci leneen lu ñu gisagun lu ñu gisaat ndaa ci tënk wird ah, yi foofu la tàmbalee mooy lépp li su li féete suuf hada huwa wirdul xaatimi al maxuus mooy yàq bi waaw ah, wird bi nag dafa am ay composant wird yi ci jiitu noonu loolu ngay wax ne day demee ni muqaddama loolu moom la ñu tuddee fawaatix yi koy ubbi yi nga xam li nga xam ne moo ne ci digg bi a'uuzu bi kalimaati llaahi taammaati min sharri maa xalaqa ba jeex yooyu eh, dañ koy jàppe ay ak laqad jaakum jaak Euh, yooyu dañ ko jàppe ay euh, kii dañ ko jàppe maanaam mm, ay ay ay ay usul ay usul mooy usul yi azbalatun basmalatun euh, ak xëyla la waaw bu dee ca xafif ak kii nga dolli ci ay ay xasbalaat salaatu ala nabi yooyu yëpp nga xam ne ay kii lay doon ay ay ay ay kii la ci wirdu bi ay ay usul léegi nag yiñ koy tëjee noonu ayat yiñ koy tëjee ba ci subhaan rabbika rabbil loolu mooy xawaatim yi mhm. kon bu ko defee loolu daal mooy wirdul maxuus al xaatim eh, foofu la tàmbalee ak fi mu yem eh, waxtu wi tamit ak eh, muxtaar meek darura beek fan lay faate Nak bu faté eh, ngant tax mu fat ñu fay ko ngant nak mo wara tax mu fat waru ñuko fat ci dul ngant alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu assalamu alaykum wa rahmatullah eh, dama fàttaliku léegi suñu Ousmane laajam boobu daa mel ni am na laaj bu ko jitu won oo xam euh dana mën andak bi muy mbokk mi doon laaj ne e, wirdul maxuus alxaatim daa mel ni dafa dégg mm, kuy wax ne e, maanaam e, mooy wird bu sëriñ bi mooy wird bi yeneen wird ci des ay ay ahzab la mu ne ndax noonu la demee wala dét ma day mel ni nag ñun li ñu xamoon ci yoon wi eh, ak li ñu jële ci sëriñ bi nga xam ne moom moom ci moom la wirdu wi la ci moom la wirdu wi jaare eh, maanaam ñëw ci ñun jóge ci yàlla eh, jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa jibril jox ko yon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu dox daje ak sëriñ bi ci sarsara laylatul qadr ba bët set weeru koor fukki fan ak juróom ñaar ci eh, ama ak sasin ama shahid na karama muy mille mille trois cent vingt deux ah eh, sëriñ bi de mu ngi njëkkoon a jot xafif eh, al wird wirdul maxuus siixa bi nga xam ne xafif la yëpp wirdul maxuus la la siixa yooyu maanaam mag ñi ñoo ko daan tuddee noonu waaw boobu lañ sëriñ bi njëkk a jot muy wirdu wi bi mu ko jotee mu ngi ko génne juróomi fan yi euh, kori ci ko génne jox ko taalibe yi kam ko njëkk a ijaazaal mooy cheikh mohammad ibn al hasan euh, moom moo njëkk bind ci wirdul maxuus bind ci aw way ngir xamle wirdu wi waaw ginnaaw ba ko sëriñ bi joxe ba ca déwén sa sëriñ bi jotaat ci weeru gàmmo guddee gàmmo yonent bi joxaat ko sallallahu alayhi wa sallam bi kaamil bi siixa kaamil bi mooy bi gën ba ci mujj gi nag mujj euh, sëriñ bi ginnaaw yoonu géej yoonu gànnaar wi eh, suñu borom jox ko xaatim bi yëpp wirdul maaxuus la tudd ah bu ko defee yëpp wirdul maaxuus la tamit ah yëpp wirdul maaxuus la tamit sëriñ bi am na ay ahzab wirdu ak xisbu bokkut sëriñ bi am na xisbu xisbu sabaaxi wal masaa al munji min al akbaari wal aswa dama yaakaar ne noonu la ko daanale man am naa ko sëriñ bi am na tamit xisnul abraar xisnul abraar boobu xisbu la waaw ci ahzaab yi la bokk sëriñ bi am na safinatul amaan almunji li qaari'iha mina mina mina mina min min min min al aswa waaw ak yu demee noonu waaw Eh, loolu xisbu la moomitam yooyu mooy axzaab yi axzaab yi li gën a bari mooy gën a gudd awraat yi eh, xisbu nag lu yàgg la ci tasawuf xisbul baxri am na eh, bu cheikh abul hasan ashazali am na sëriñ bi daana ko jëfandikoo ci géej gi nga xam ne amut bés bu mu ko jëfandikoo wut ci géej gi bi mu nekk ci géej gi sëriñ Muhammad Lamin Jóob Dagana net le ko ci irwaan nadim mag ñi sëñ Basiiru bi muy bind di jàngale wirdu wi yaara ca manzumam bu rafet boobe yaara imal kamali fi saada ci seex Muhammad Lamin Jóob Dagana indi ko ci téeram bi di irwa yaara imal kamali fi saada min turuqi al mashaayix salaasa tariqatu cheikh al imam al jili wa shazaliyi al xaaiz al tafdili umma abil abbasi faxri al kummali man xukmuhum fi al qasdi xukmu al awwali ma nam ko waxee ba ci eh, faltasiman mu ne yooyu yëpp boo ko bëggee awraat yooyu yëpp boo ko bëggee maanaam taqoo am seeni ngëneel am seeni yool ah, ak bu ci nekk lamu mu ci ay xar baax ak i may nee na boo bëggee loolu day faltasiman na nga taqoo tariqatal abdul xadim ah, maanaam yoonu sëriñ bi mooy wirdoom rek man xassa man xassahu ka nga xam ne moom la ko jagleel bi irtiha ci donn wirdu yooyu rabbul karim suñ borom bu tedd ba lii lay wane ne wirde wi lay wax mooy fa in axasta wirdahu boo jàppee wirdoo sëriñ bi axasta jàpp nga wirdal jamii wirdoy mboolem turuq yooyu ak aqtaab yooyu laata xaafu kaptaadoo ragal euh, alkande ndax dañ daan wax ne euh, wirdu yooyu boo ko jëlee waat ko da ngay alku moo tax ñu bari ragal wirdu te wirdu maanaam fekk na wirdoo sëriñ bi moom boo ci jàppee sëriñ Basiru nee na jàpp nga mboolem awraat yooyu doonte da ngaa jàppoon wird yooyu bàyyi ko jàpp ci wirdoo sëriñ bi bul ragal alkaane doo al ko mukk ndax ndax ndax maanaam eh, eh, wirdu ci nekk ci wirdu yooyu dafa am ab secret boo xam ne ni ñu ngi ko dajale ci benn baat ci wirdul maxuus booy jëfe wirdul maxuus yaa ngi koy jëfe nee na eh, baat boobu nag dañ koo nëbb dañ koo nëbb nga xamne nit yi basira yi rek ñoo koy xam comme ni nga xamne nit yi basira ño xam laylatul qadar ci wéru koor ño xam saatul ijaaba ci besu aljuma kon eh, seigne basir nak ba muy way lolu ak cheikh eh, muhammad ibn al hasan ad daymani mi seigne bi ñëk jox wérdu wi ijaazaal ko ci bind ko eh, ak ak cheikh usman mom nga xamne al-madani sëriñ bi joxon nako ko ko bind ijaaza bi mu ngi ci minan wala ci nafaat miskiya ak muhammad eh, ibnu abdillahi al alawi ñoo ñëpp ba leen di sëriñ bi ñu jox wirdu wi xafif boobu la woon waaw ah, li ci gën a bari xafif boobu la woon léegi xafif boobu sëriñ bi di leen ko ijaazaal tudde ko wirdu kon sëriñ bi wirdu la ko tuddee ah ngëneel yi ciy wax tamit eh, yu ci bari wiir wirdu lay jëfandikoo kon yooyu ay awraad la ahzaab yi bokkut ak awraad yi boo demee ci téere tariqa yi eh, xool di nga gis ne ahaz bu bokkut ak wird ah sëriñ bi ahzaabam yi moom tudde na ay ahzab la ko tuddee yenn yi yenn yi mu jox ko yeneeni tur teewut boo ko xam dara ci tasawuf di nga xam li ay ahzaab la du ay wird du xasida yenn saa yi am na ko xasida lañ koy tuddee xasida moy aw way mhm. yoy du ay way ay ayat alquran yu ñu dajale la ak hadith ay ñaan ak ñaan gañu bax ñi ni ci hasnul abrar rek bo gisee gis nga hizbu. waaw xisnul abraar xisbu la xisbu sabaahi wal masaayi xisbu la boobu sëriñ Tuuba ah, ak yu demee noonu sëriñ bi am na ay ahzaab yoo xam ne nii doonte tuddewu ko noonu am yum ko ci tudde waaye boo ko ne jàkk rek xam ne ni ay ahzaab la noonu la amee ay lawraat mooy ñetti siixa yi xafif kaamil ah, bu ko sëriñ ba ko ñi di tudde wird daanaka mag ñi sax li gën a bari buñ ne wird xafif lañ ci jublu ak kaamil waaw nga xam ne sëñ Basiru jàngale na ko ba jàng jàngale eh, maanaam usul yi ci nekk eh, yi ko composé bay wax ne salaatu ala eh, maanaam zikrullahi la salaatu ala nabi xasbala ak yooyu ak alquran jàng ay ay alquran ak xeet yooyu waaw ne mu ngi cey juñ salaatul fatiha kon yooyu yëpp ba mu koy wax salaatul fatihi ba mu koy wax boobu ñoom jubluwuñ ci sax wird xaatim kon wirdu khatim mom da mujj ñëw rek ñaar yi ci ci jitu waye taxut mu doon wirdu mom kese ye doon lenen yooyu ñett yëpp ay wirdu lañ loolu mom moy li nga xamne moy moy li wër ci mag ñi moo wér ci serigne ba tamit ci liñ xam mo wër ci ñun tamit eh, té loolu lañ japp moo tax loolu rek lañ ci mëna tontu assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh